voilà ravi de vous retrouver Sénégal Télévision mbokk yi xarit nañ leen bu baax da leen jàmm seen émission partage aujourd'hui on s'est déplacé ñëw ba si centre conseil ado euh, ngir waxtaanee benn programme boo xam ne daan na ko njëriñ la si askan wi njëriñ la si nga xam ne mooy euh, ndaw ñi ñu feggoo seek sama naataango bii di Amadou Gueye euh, faree ci li nga xam ne mooy centre conseil ado ñu bàyyi la nga nuyoog suñu ay internautes. waaw salaamaaleykum mbokk yi xarit yi maa ngi leen di nuyu di leen Mor maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax donc tur bi Amadou Gueye la. Mhm. technicien IEC bu centre conseil ado c'est-à-dire information éducation et la communication du centre conseil. Mhm. Ah, tey jii centre conseil ado li nga xam ne mooy taxawaayam si ndaw ñi jamono ji lan la. waaw centre conseil euh, taxawaayam dafa doon lu am am solo ndax boo déggee centre conseil mooy service boo xam ne si adapté aux besoins des jeunes mhm. maanaam tey lépp loo xamante ne nii euh, jeunes dañ ko soxla mu xam. soit jafeñ-jafeñ la mu xam lu aju ci santé de la reproduction c'est-à-dire VIH euh, infection sexuellement transmissible yi grossesse précoce yi mariage d'enfants yi ba ci sax question d'environnement yi comme drogue tabagisme et tout ça donc ñun suñu liggéey moom mooy fexe ba jege ndaw ñi mhm. euh, jàppale leen bu ko defee yooyu nga xam ne day lor doomu aadama yi mu bañ leen a lor mhm. waaye ñi nga xam ne également peut-être dañu am ay problème ñun dañ leen di jël en charge parce que lépp lu ñu fay def rek c'est gratuit service la boo xam ne lépp lu ñu fay joxe c'est gratuit nous avons des des sages yoo xam ne ñu ngi fi am nañ sage-femme mhm. am laborantine am également aussi technicien IEC maanaam tout ce qui est accompagnement psychosocial et tout ça mais nous avons également aussi une coordonnatrice boo xam ne moom mooy coordonner tout ce qui est activité boo xam ne tey dafa aju si euh, centre conseil Addo bu Rufisque bi. Euh, jamono ji mu mel ne da ngeen tëral benn programme euh, ngir jublu si sensibilisation lu soxal si mariage d' enfant ak li nga xam ne mooy tur bi damay naan contexte dañuy demee sans bu sensibilisation la ñuy wax maanaam jongal jigéen tamit tey jii bokk nga si li ngay ñi xeex ak li nga xam tamit mooy mariage d' enfant ak grossesse précoce. tey jii si mariage d' enfant la ñuy lan ngeen jàpp ne tey jii moom mooy cause yi. waaw loolu boo si boo ma si posé question dinaa si sawar lool parce que comme ni nga ko waxee rek programme la boo xam ne ñu ngi si ànd ak suñu benn partenaire technique bu ñuy wax UNICEF. Mm-hmm. donc moom moo accompagner li nga xam ne moom moo di les centre conseil euh, du centre conseil bu Rufisque kese sax. mais je précise donc centre conseil yi nekk Sénégal yëpp. parce que nous avons quinze centres conseils. Mm. ak vingt quatre bureaux donc dañu àndandoo ak ñoom si programme boo xam ne lutte contre les mariages d' ak euh, li nga xam ne également moom nga wax muy mutilation génitale féminine bi mhm. donc par rapport ak sa question bi muy cause li nga xam ne moom moo di euh, comme ni ko waxee euh, mariage d'enfants yi mhm. donc bokk na si li nga xam ne moom moo di la pauvreté boobu mooy première cause yi ndax tey am nañ yenn parents yoo xam ne jàpp nañ ne peut-être dem nañu ba mënatuñu couvrir besoin wu ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen doom yi mhm. alors li ñuy gis mooy bu ñu gisee ne peut-être am na benn ma euh, Mademba ma Masamba boo xam ne ñëw na. Mhm. yor li nga xam ne peut-être moom moo di yenn moyens ñoom li ñuy yaakaar mooy bu ñu jëlee xale bi poussé ko si li nga xam ne moom moo di mariage jàpp nañ ne peut-être loolu dina leen mën a dimbali. parce que euh, xale boobu bu demee am loo xam ne day ki si ñoom mhm. mais foofu noonu dañuy juum parce que comme li ñuy wax rek xale bi déjà dañu seetlu ne lu si ëpp mooy day toll foo xam ne ay cëram matagul sax pour mu dugg si li nga xam ne moom moo di euh, sëy ndax euh, sëy boo demee ba xale bi amagul li nga xam ne moom mooy dix-huit ans donc moyen de dix-sept ans wàcc suuf jàpp nañ ne kooku waragul dugg si li nga xam ne moom mooy néegu sëy ndax psychologiquement parewul mm-hmm. euh, morphologiquement parewul waaye tamit nag euh, maanaam li si ëpp solo moom mooy tey comme li ñu wax rek psychologiquement boobu ndax bu mm-hmm. duggee si say say c'est autre chose mën na fa fekk loo xam ne benn pression sociale boo xam ne tey bu bëggee àngu li nga xam ne moom moo koy fekk si biir néegu sëy day mm-hmm. doon loo xam ne vraiment lu lu lu lu jéggi dayoo lay doon bokk na également si li nga xam ne moom mooy cause moom mooy benn faible niveau d' information bi mm-hmm. parce que tey amaana Euh, population bi wala parent yi bu ñu amoon benn information nécessaire bu aju si li nga xam ne moom moo di wàllum sëyax yi ni mel donc foofu dina leen permettre davantage à que ñu jël xale bi téye ko ñu bañ ko pousse si li nga xam ne moom moo di sëy parce que sëy nekkul loo xam ne danga ko war a forcer nit ki à ce que mu koy def ndax tey jii ni xale boobu yi nga xam ne ñu ngi koy pousse ñu ngi bafouer li nga xam ne moom moo di ay droit am droit de la fi boobu ñu ko koy bafouer mm. ndax am na ay droit yoo xam ne tey moom waruñu ko dugal si loo xam ne d'accord foo xam ne consentement amu fa rek foofu vraiment waruñu forcer nit ki parce que muy dugg si li nga xam ne moom moo di mbirum sa yeex yéen a euh, tey jii ci kaw loolee si naka ngeen ñi def ak li nga xam ne mooy wàllum aada parce que la plupart fii Sénégal je pense bien loolu mooy seen problème tamit. tout à fait waaw bu dee wàllum aada li ñuy def moom mooy la sensibilisation. voilà parce que comme ni ñu ko waxee par rapport ak programme bi am nañu ay stratégies yoo xam ne ñu koy utiliser. Mhm. lu mel ni euh, VAD muy signifier visite à domicile. nous avons des pères éducateurs yoo xam ne. le centre conseil pour adolescents et jeunes de Rufisque ñoo leen formé. d'accord mu doon benn formation de qualité boo xam ne tey ndaw yooyu nga xam ne formé nañ leen si douze communes yi fépp fu fi ne am nañu ay ndaw yoo xam ne ñoo ñu teewat gis nga formation boobu ñu def si ñoom dañu leen di wàcc sur le terrain ñu def le visites à domicile tey yor nañu ay fiches yoo xam ne si la ñuy recenser kër yi ñuy dugg bu ñu demee. ak mesure de protection yi nga xam ne jox nañ leen ko parce que dañ leen outillé jox leen ay gel jox leen ay masque jox leen ay flyers yoo xam ne dañ si gravé maanaam euh, programme bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu lancé wu muy mutilation génitale bi ak mariage d'enfants yi bu ñu demee tey bu ñu duggee si kër dañuy dem waxtaan ak parents yi li ñuy waxtaan ak ñoom moom mooy thématique yi nga xam ne moom la ñu tànn bokk na si mariage d'enfants bokk na si mutilation génitale bokk na si fréquentation bokk na si euh, internet bokk na si li nga xam ne moom moo di euh, li nga xamante ne ni tey moom la ñuy wax euh, réseaux sociaux yi donc mën na ëmb internet yi. d'accord bokk na également si li nga xam ne moom moo di exploitation des enfants bu ñu demee tey di waxtaan ak euh, parent si thématique yooyu duñ leen forcer li nga xam ne moom la ñu bëgg maanaam père éducateur duñ leen forcer ñoom li ñu leen jàngal dañuy ñëw def li nga xam ne moom moo di partage. si diiru genre négociation. voilà genre négociation la si diiru 30 minutes. wala 45 minutes daañu si fexe ba. Euh, convaincre ñi nga xam ne ñoom ñoo di parents yi par exemple tey bu fekkee dañu dugg kër goo xam ne mutilation génitale dafa am du ñu ñëw ne la pratique bi force danga koy bàyyi parce que bu ñu fàtte ne tradition la boo xam ne ñoom dañu ko am. Hmm. loo xam ne da nga ko dañ ko ancré si seen bopp doo ñëw rek jële ko fi mais dañuy fexe maanaam euh, miinante ak yow. benn bu ñu paree am fu ñu la jaar pour wax la ne la lii ngay def nii kat am na leneen lu ko gën attention duñ la wax ne li ngay def dafa bon de lay wax ne la li ngay def. am na lu ko gën est-ce que boo defoon nii du doon lii gën bu ko defee li nga xamante ne nii moom la ñuy def xale yi mu mën a dañ voilà donc c'est comme loolu maanaam stratégie yooyu la ñuy utiliser pour ñi nga xam ne traditionnellement ñu ngi def yenn pratiques yi ñu fexe ba jàppale leen ngir loolooy nga xam ne moom moo ancré seen bopp mu mën a dañ. Mhm. est-ce que tey jii si côté li nga xam ne mooy euh, jigéen ñi nga xam ne tey jii mooy mariage d'enfant bi fii si kan centre conseil ado am ngeen si ay cas yoo xam ne reporté euh, daan ngeen koy répertorier tamit. oui oui nous avons pas mal de de de cas yoo xam ne dañu koy am parce que comme ni ñuy wax rek VAD yi ñuy def nii. Mhm. bu ñu demee ba ñëw ñun si fiche yooyu la ñuy sukkandiku pour mën a xam. ñaata cas moom moo am par rapport ak euh, maanaam mariage d'enfants yi par rapport ak mutilation génitale yi par rapport ak cas viole viol yi parce que violence également mu ngi fi violence uh-huh. sexuelle yi ak uh-huh. violence euh, physique yi maintenant bu ñu recenser li nga xam ne parce que gis nga fichier am na fu ñu bind euh, terme de référence motif e lieu uh-huh. maintenant motif bi moo ñu permettre ñoom père éducateur yi ñu bind ban cas la bu dee viol la ñu bind viol référence bi dañuy bind centre conseil pour adolescents et jeunes de Rufisque. léegi nag ñun à notre niveau bu ñu gisee cas boobu noonu dañu koy jël parce que am na numéro de téléphone. am na adresse bi nga xam ne moom lañ si def domicile bi. Mhm. am nañu turu ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk am seen âge seen coordonnées yëpp. Mhm. à notre niveau ce qu'on faire moom mooy. woo ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey li ndey mili ji maanaam parents yi convoqué leen au niveau du centre conseil euh, bu ñu leen convoqué xale bi lan lay soxla accompagnement psychosocial si assistance voilà assistance boobu noonu dafa am solo parce que xale bi tey loolu nga xam ne dañ ko dugal si vie am te te bokk si te xamu ko daf koy choqué maintenant choc boobu muy def si moom dafa am lu bëri lu muy def si euh, maanaam daf koy freiné si lu bëri par rapport ak développement am bu fekk da doon jàng tey dina répercuter si li nga xam ne moom mooy jàngat mhm. bu fekkee tey par exemple cas de viol la wala peut-être cas wu grossesse la xam nga kon kooku dootul mënati jàng ji xale bu xale bu jigéen boobu noonu mhm. déjà abandon boobu nga xam ne moom lay abandonné école bi rek je pense que loolu dafa doon lu garaaw loo xam ne tey ñun euh, centre conseil lépp luñ si mën dinañ ko def parce que xale bi benn dinañ ko jël en charge pour grossesse boobu noonu mu dem ba mucc waaye ñaar aussi on fera les nécessaire pour que mu delluwaat ci li nga xam ne moom moo di ban école bi gis nga Mor la plupart jeune filles yi nga xam ne dañuy jël grossesse. bu ñu ko jëlee ba noppi duñ delluwaat école. xam nga lan moo tax jàng carrément. voilà parce que benn euh, dañ leen di stigmatiser. parce que jàpp na ne moom moom déjà day njëkk a culpabiliser boppam. mais ñu di culpabiliser seen bopp en fait parce que loolu du moom moo ko teg boppam. nattu la boo xam ne dafa tegu ci kawam benn beneen bi aussi mooy euh, maanaam société bi moom it day stigmatiser ki nga xam ne moom mooy xale bi yooyu ñu koy def noonu merci yooyu ñu koy def noonu mooy tax tey moom dootul amati le courage pour dellu mhm. maintenant ñun centre conseil foofu la nag suñu liggéey di amee solo parce que xale boobu dañ koy xamal benn ne ko yow waroo culpabiliser sa bopp te si société bi nga bopp lii la dal ni du loo xam ne yow yaa ko teg sa bopp mhm. accompagnement boobu ñu lay defalal noonu dina la permettre tey ñu wàccil la pois bi nga xam ne moom moo nekkoon sa bopp jàppale la mhm. ba nga delluwaat si bangu école bi am na sax lu ñuy préparer euh, euh, tobb ne euh, da ngeen ñëw sax au bon moment muy club de jeunes filles. d'accord déjà suba incha allah muy le vingt neuf décembre la ñuy monter premier club de jeune fii bokk na suñu ay stratégie des clubs de jeunes fii def ko ci stabli établissement scolaire yi def ko également ci ci gox yi. ak gox gox maanaam pour gën a jege li nga xam ne mooy euh, jigéen ñi gën a jege li nga xam ne mooy euh, contexte la plupart du temps école la ñu gën a passé seen temps comme ça ngeen mën leen a jege ku mën a ratax li nga xam mooy sensibilisation c'est ça ñu gën leen a jege nekk ak ñoom parce que club yooyu noonu gis nga bu ñu bu ñu jëlee xale yi parce que club yi ñi si bokk dañuy tombe maanaam seen âge toll si quinze ba vingt quatre ans gis nga diggante quinze ba vingt quatre ans tranche d'âge boobu dañ leen di jël benn dañ leen di former dinañu jël vingt jeunes filles gox bu nekk école bu ne également si daañu fa installer les clubs de jeunes filles. d'accord gis nga vingt jeunes filles yooyu dañ leen defar formation en leadership defal leen formation si développement personnel ñu xam bopp xam ki ñu doon parce que loolu noonu man jàpp naa ne doomu aadama yëpp ko war a def. mooy base bi voilà développement personnel boobu nga xam sa bopp d'abord. defal leen également si formation si wàllum savonnerie ak et tout ça parce que il faut que ñu xam ne maanaam euh, jàng kese. yorul ki nga xam ne moom mooy ndaw il faut ñu am beneen xam-xam boo xam ne dañ koy mën a allier ak li nga xam ne moom moo di seen jàng bi gis nga bu ñu si noppee club de jeunes fii boobu bu ñu leen formé ba noppi dañuy def également aussi des causeries maanaam ndaw ñi si boppam ñoom ñi ñu formé ñooy dem waxtaan ak seen i yeneen i moroomu ndaw pour xamal leen ne leen boo nekkee ndaw. nii ak nii nii nga war a. comme genre des messagers a relayer li nga xam information si biir gox goxaan. Euh, boo xam ni daanaka moom mooy def euh, xeex li nga xam moom la yi nga xam moom nga ne mooy euh, mariage d'enfant préfacé par madame Ndeye Saly Diop Dieng je ministre de la femme. d'accord tey jii catalogue ngeen toll si li ne mooy sensibilisation bi ngir askan bi. par rapport ak catalogue ni ko ndaw ñi nga xam ne dañuy am intimité ak seen partenaires yi. d'accord d'habitude dañu jël li nga xam ne moom moo di seen ay précaution précaution mm-hmm. day doon loo xam ne c'est des relation sexuelles yoo xam ne ni tey daf leen bett à l'improviste la ñuy gisantee ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen partenaires yi. Mm-hmm. maintenant bu ñu gisantee ak ñoom tey jii nii comme ni ma koy waxee rek amaana amuñu information bi war ngir mën a protéger seen bopp. d'accord wala partenaire bi ñu ko séqal sax amaana moom. jàpp na ne moom li mu gis mooy du leen lu dul satisfaire ay désir mm, euh, sexuel am mm-hmm. bu fekkee tey ñoom fooyee nañ seen bopp ba jële si li nga xam ne moom moo di euh, euh, lor ëmb wann lor boobu mm-hmm. tey ñoom dañuy jàpp ne méthode bi gën moom mooy dindi grossesse bi mais foofu dañuy juum li tax ñuy juum mooy tey amul kenn koo xam ne tey moom moo décidé ne dañu koy indi sur mm-hmm. yàlla moom mooy namm doom indi ko si si nga xam ne moom moo di kaw suuf léegi nag ñun à niveau suñu suñu xeex du leen du tey xale bi nga xam ne tey dafa dafa war na lor bu ñu ko jëlee dañu koy xamal boppam d'abord xamal boppam boobu ñu koy xamal boppam dañ koy wax ne ko lii la dal nii tey parce que gis nga il faut que ñuy ñuy ñuy ñuy foofu xale lii la dal nii du ne nekkul loo xam ne daf la dal rek da nga war a yàq sa àddina. Mhm. da nga war a xam ne y a des conséquences yoo xam ne mu ngi si wax nga ko sànq cof nga ko. gis nga génn biir boobu ñuy génn biir noonu dafa nekk loo xam ne déjà deret bi ñu si perte rek xoolal ni mu bëree tellement dee sax man na fa maanaam mën nañ fa sax ñàkk seen bakkan parce que tellement deret boobu nga xam ne moom la ñuy perte mhm. te li si li si gën a yéeme mooy ñoom xamuñ ne am na maanaam période boo xam ne bu fa grossesse bi tolloo boo laalee biir bi day nekk loo xam ne lu dangereux lay doon mhm. te ñooyu yëpp ñoom amuñu information boobu dañuy dem dal si koo xam ne nii amul benn information si santé de la reproduction dëgër fit la dina la permettre à ce que biir bi yàqu wala boo defee lii yooyu yëpp ay erreur la gis nga centre conseil yi ngay gis nii moom mooy service bi nga xam ne fii nga war a mën a jaar ñu jox la information de qualité yi. d'accord te ñun je précise le centre conseil du conseiller benn doomu aadama mu yàq li nga xam ne moom moo di biir. Mhm. ñun suñu wareef mooy protéger xale bi nga xam ne moom moo nekk si biir ba dara du ko dal ba nga xam ne day mucc si jàmm ak salaam. ak ak yaay ji surtout mhm. looloo waral sax service bi ñu fiy def dafa nekk loo xam ne c'est gratuit duñ la fay de la may la sax carnet pour wan ne ne ñun pare nañ pour accompagner la jàppale la jàppale bi nag duñ ko def si Petox yow centre conseil de même say wayjur sax dañ leen di approché foofu laa bëgg a si côté parents yi parce boo xoolee lu tax euh, ñu nëbbatu seen yooyu tey jii si côté parents yi tamit je pense bien que war ngeen da ba accentué yow tamit seen communication si foofu dëggantaan parents yi dañ leen di si xeex bi même les bàjjenu gox gis nga mm-hmm. centre conseil man jàpp naa ne meilleure implication bi ñun ñoo ko def parce li ñu njëkk def surtout avec la coordonnatrice muy madame Yann Gueye bi mu ñëwee. Mhm. képp kuy autorité locale bind na la lettre xamal ne la yegsi naa sa dëkk. commencé ko si préfet les maires les bàjjenu gox les président conseil de quartier xamal képp kuy acteur communautaire impliqué la si li nga xam ne moom moo di centre conseil. par rapport ak programme yi gis nga parent yi. VAD yi ngay gis nii VAD parents sax am na dañuy ñëw bi ñu waxee ndaw ñi ba pare même parents dañuy wax ak yéen ne leen ñun centre conseil lii mooy suñu liggéey. club de jeune fii bi ñu bëgg a installé nii parents yi dañ leen invité ngir ñu ñëw fekkee li nga xam ne moom mooy club de jeunes filles ñu xam seen xale yi ñu jël si lan lañ leen di dugal mm-hmm. kon xam nga ku doon laqatu wala di def naka su dul noonu kon du impliquer les parents jox leen TDR muy terme de référence ñu man si référé wu xam si lan ak lan ak lan la ñuy dugal seen doom ak centre conseil si lan ak lan ak lan lay doon parents ñu ngi leen di impliqué ngir ñu bañ am benn jiqi jàq mm-hmm. si euh, seen doom par rapport ak fréquentation bi nga xam ne moom lay def au niveau du centre conseil di fàttali ba tey rek yee ngi seen émission partage ñu nekk fii si biir centre conseil ado ci euh, programme bi xeex mariage d'enfant mariage précoce ak mutilation génétique euh, tey ji na ko si foo pàcc boobu la ñuy dugg mooy li nga xam ne mutilation génétique ñu gën ko xam si li nga xam ne man moom dama naan puisque dañuy wax sensibilisation dañuy utiliser termes yi nga xam ni moom la askan wi xam su ko defee gën nañ mën a toucher carrément mu jigéen yi nga xam ne dañ leen ñuy jongal Euh, tey jii mu doon phénomène boo xam ni je pense bien que mi ngi xaw a wàññeeku la ñuy wax parce que mu deñ na fi carrément ama fay naam am na loi boo xam ne 1999 su ma juumul mhm. interdire na ko euh, nga xam ni képp ko defati yoon dafa war a dal sa kaw mais teewul ba tey ñi ngi koy nemmeeku saa su euh, mhm. tey jii lan mooy lan lan naka ngeen gisee phénomène bi nga xam ni naam jéego yi nga xam ñi ngi koy def teewul ba tey mi ngi fi ba tey ñu ngi koy mettirlu moor vraiment ñu ngi koy lu bu baax a baax a baax a baax parce que déjà violation la des droits des filles vraiment Euh, yaakaar naa ne jigéen jekkul sax ñuy dégg ne dañu koy dañu koy xarafal jekkul si dégg-dégg ah ah sàqantu malaax li nga xam ne moom moo di gis-gis ñu koy pratiquer mu doon loo xam ne ñun centre conseil ado doon na loo xam ne lu ñuy mettitlu la mhm. ba pare ñuy waxat encore une fois ñu ngi euh, gën a réitérer li nga xam ne moom mooy suñu engagement par rapport ak li nga xam ne moom moo di pratique boobu ngir mu joge fi. Hmm. parce que ba tey mu ngi fi. ba mi ngi fi mu ngi fi naam sax mu ngi commencé wàññeeku par rapport ak jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ndax li tax euh, mu des fi ba léegi ñoom dañu changé méthode. xam nga dafa toll woon jamono yoo xam ne da ngay dem ba dëgër ñu def la ko. Hmm. mais léegi y a ce qu'on appelle l'excision au berceau. d'accord maanaam xale bi fi muy juddoo si lalu hôpital ba sa pla plateau ba. foofu la ñu koy xarafale am ñoo xam ne dañu leen former. ñoo xam ne si personne médicales yi la ñu nekk ñuy pratiquer li nga xam ne moom mooy li ni mhm. donc day doon loo xam ne xam nga lut boobu noonu. day métti ko booba day day jafe. Mhm. ngir nga réussir que à cent pour cent mënuñ ne réussir na à cent pour cent parce que ba tey mu ngi fi. Mhm. ndax l'excision au berceau boobu dafa nekk lu piir loo xam ne tey ñun amaana sax liñ si teel a bàyyi xel sax moo tax mu xaw a amaana ñu xaw ko di wàññi tu tuuti mais nekk na loo xam ne tey imaginez yow liir. koo xam ne xamagul dara. fi mu juddoo foofu ñu ñu ñu ñu xarafale kooku fan la jëm fan la jëm ak méttit boobu nga xam ne moom lay sentir mm-hmm. kooku mën nga rey sa xale bi méttit boobu ak deret bi nga xam ne moom lay ñàkk tey jii ni peut-être bon je sais pas droit à l'image est-ce que ça nous permet li nga xam ne noonu mm-hmm. nekk na loo xam ne tey jii ni par rapport ak li nga xam ne tey xale bi bu demee ba màgg conséquences yi moo gën a yéeme si addina parce que c'est dangereux rien que rien nga xalaat ka rek da nga naan de lii est-ce que loolu ngay njëkk wax pratique bi est-ce que c'est humain mhm. déjà maa ngi wax par rapport ak conséquence mhm. xale bi nga xam ne tey dañ ko xarafal mu dem ba màgg est-ce que xam nga ne buy sëy ak borom këram du sentir dara lépp luy plaisir du ko yëg beneen bi mooy bu demee ba doom sax sos fa déjà sëy bi rek day metti sëy bi day doon sëy bu bu catastrophique boo xam ne ay douleur rek lay jëm bu demee ba jël si grossesse bu waree am doom foofu la beneen beneen affaire lay dem complication dëggantaan lay am pour mu am doom beneen bi aussi moom mooy deret bi nga xam ne tey moom lay ñàkk ñaata deret lay ñàkk si li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne ni tey moom maanaam xarafal boobu ñi nga xam ne moom lañ koy defaral c'est c'est des ba pare gis nga par rapport ak douleur boobu nga xam ne lay yëg xam nga métti si xol lay jàpp uh-huh. mën na ko sax rey day dem ba da koy rey carrément parce que tout simplement day dem ba xam ne dootu ko attanati uh-huh. ndax loolu maanaam tey li nga xam ne utiliser am na xam ne lañ jël ngir xarafal xale bu jigéen bi ba pare xoolal dañuy endommager partie bi nga xamante ne ni partie génitale bi la ñuy endommagé imaginer loolu ndax loolu tey doomu aadama dina ko dina ko dégg dina ko mën a accepter ba di ko def sax endommagé ko ba nga xamante ne ni tey maara day taali moo tax ma ne est-ce que peut droit à nañu permettre à ñu mën a wane li ni mel. mais je pense bien que parce que dañ nekk si euh, domaine la li nga xam ne mooy sensibilisation je pense que tout est permis mhm. parce que day phénomène boo xam tey jii ñëpp képp koo xam ne si war muy a xeex rawatina bi euh, parce que nous sommes euh, mooy image bi nga xam tey xam ne mooy information si ñun lay jaar donc je dañ koy waxtaane tout moment war nañ koy tam di koy di Euh, tey jii nga foogoo ne tamit xeex boobu noonu est-ce que du ngeen si dugal li nga xam ne mooy kilifa diine yi parce que je pense bien su fekkee côté euh, xarafal jigéen yi ak euh, kon te ñoom aada la topp te je pense bien que aada du prôné mooy diine tout à ne te mooy tawax ñu wàññi est-ce que tey jii du ngeen jiital seen xeex imaam yeeg ak lu lu mel wax wax nga loo am solo tu suis bien le débat hmm. li tax ma wax loolu mooy que ne par rapport ak sa question bi dafa am solo ndax euh, VAD yi mujjee nii rek muy visite à domicile mhm. dañu def euh, l'excision ab berceau ak euh, argumentaire religieux contre les mutilations génitales féminines. d'accord gannaaw bi ñu demee di sensibiliser si li nga xam ne moom mooy excision au berceau am na beneen thématique boo xam ne moom la ñuy wax argumentaire religieux contre les mutilations génitales. Mhm. maintenant foofu noonu la kilifa diine yi di duggee. d'accord chef de quartier si la ñuy duggee imam yi si la duggee ñi nga xam ne aussi maanaam ay notable lañ. Euh, si li nga xam ne moom moo di tradition yi foofu lañ leen di impliqué si li nga xam ne moom mooy xeex bi ñu xam ne ñoom it am nañ si pàcc bu ama am solo par rapport a li nga xam ne moom mooy lutte bi parce que comme ni nga ko waxee aada la te aada moom pour dire vrai loo xam ne da ngay xëy rek mu jóge fi il faut ay mag yoo xam ne ñoom boo leen impliqué wul duñ la mën a wax yan stratégie nga war a mën a adopté pour mën jëlee fi li nga xam ne moom moo di phénomène bi nga xam ne vraiment euh, dafa dafa jéggi moo tax foofu noonu vraiment dugal nañ leen si te gis nañ ne par rapport ak VAD yi nga xam ne père éducateur yi moom la ñu def muy visite à domicile yi ñu gis. Hmm. muy argumentaire religieux yi gis nañ ne par rapport ak recommandations yi parce que y a des maa ngi gis ay ay recommandations yu extraordinaire yoo xam ne kilifa diine yi ñoom ñoo koy wax. si ñoom si boppam ñoo la hmm. ñoo lay recommander ne la lii ak lii ak lii boo leen ko defee na leen permettre davantage parce que li ngeen bëgg nii mu jóge fi. parce que bu bu de ñëwee man à mon niveau avec euh, la permission du euh, donc de la coordonnatrice nationale. man maay vérifier li nga xam ne moom moo di VAD di xool les recommandations foofu la ñu dañuy permettre davantage ñu mën a xam yan stratégie la ñuy dolli si kaw yi nga xam ne moom lañu am ba noppi mu doon lu am am solo ñoom ñu ngi si biir xeex bi vraiment te ñu ngi si def lu am solo ah, tey jii ndax fi au niveau du département comme puisque nous sommes dans le département de Rufisque am nañ fi ay kaw euh, muti mutation mutilation génétique ampagaay ampagaay Ndiaye non ti dékoon wala ampagaay Ndiaye mutilation génitale fii au niveau de au niveau de Rufisque Tivaouane Peulh y a ka au niveau du Tivaouane Peulh am na ay euh, cas ay filles yoo xam dañ leen exciser fi nga xam ne moom moo di ñaajo euh, am nañu fi ay cas yu bëree bëree bëri ñoo xam ne dañ leen exciser ma ne la père éducateur yi bu ñu ñëwee dañ la naan temps mooy fi ma la wax noonu besoin de référence mhm. motif et dañ lay bindal ñaata ka lañ fa am ak xale yi ñan ñaata at la ñu am am na benn père éducateur boo xam ne maanaam bi mu demee si kër gi nee nañ ko Euh, semaine bële passé xaw ma mois bële passé ñetti xale yi fa nekkoon yëpp dañu leen yóbbu woon village pour dem xarafal leen ay xale yu jigéen. mais tey jii est-ce que yooyu tam di ngeen di ngeen ngeen dem si yoon parce que tamit je pense bien tamit des fois même bu fekkee sensibilisation bi am na solo tamit dox porte à porte yi am na solo mais des fois duggal si voie juridique est-ce que tamit du leen gën a may doole tamit. mënul mënul ñàkk mais xam nga comme li ñuy wax rek stratégie la ñuy def maanaam tey du ñu ñëw utiliser li nga xam ne moom moo di la force li ñuy njëkk a def moom mooy échange bi tey bu ñu amee cas xale yi bu ñu amee cas xale du ñoom ñoo koy fajale père éducateur xam nga dañuy andil kaay ñun suñu niveau ñun ñooy jóg sol suñu dàll dem ba si kër gi nga xam ne foofu la ñu foofu la mbir mi xewee. Mhm. ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di parents yi. parce que xam nga déjà li am am na ba pare. voilà côté xale boobu moom dund na kii bi ba pare. Mhm. mais amaana ñeneen. la ñuy sóoraale ñoo xam ne juddooguñu wala ñëwaguñu ànd seex euh, direction bi nga xam ne euh, moom mooy projet promotion des jeunes mhm. vraiment ñoom ñoo nekk niveau central ngir gunge ñu rattaché wu directement ak le ministère de la jeunesse mhm. donc bëgg nañ balaa le 31 décembre ñu jeexal li nga xam ne moom mooy programme bi jeexal ko si euh, puisque tàmbalee nañ ko si bismillah ñu jeexal ko si alhamdulilahi rabbil alamin mhm. par rapport ak cas yi ñu am ñu def li ñu war il faut mu am li nga xam ne moom mooy suivi bi par rapport ak cas ñu am te loolu à notre niveau duñu ko seetaan benn yoon parce que mënuñu imaginer xale yi subiir li ni mel muy excision di grossesse précoce di mariage d' enfant yi ñu toog ne xel ne am nañ cas yi nañ bàyyi moom nu sedd jamais non non li nga xam ne ni moom mooy programme bi le par rapport ak moyens yi nga xam ne moom lañ si def par rapport ak yi nga xam ne xale yi aussi muy père éducateur moom lañ si def nekk si naaj bi dugg si kër yi lu ne ñu daj ko xam nga ne kon loolu bu ñu ko andilee ñun duñu toog fii nii jël ay dossier teg rek ne non non pare nañ programme bi la ñuy def mhm. par rapport ak moyens yi ñu def aussi si presse bi muy campagne euh, euh, média yi le surtout loolu est-ce que foofu tamit nga gën a appuyer parce que puisque nit ñi léegi ñi ngi digital ñi ngi si télé yi et tout ñu utiliser li nga xam mooy voie presse pour mën a euh, ak kii teg nu ñu koy waxee sax atteindre seen cible d'accord mais yow mën nga témoigner en tant que représentant de RSTV Rufisque Sénégal TV vraiment ngeen def euh, liggéey bu am am solo signé nañ euh, convention boo xam ne ñun ak yéen la te liggéey bi du yem fii mhm. parce que média dafa doon loo xam ne fi mu mën a yeggalee wax ay tànk mënu fa yegg mhm. vraiment moo tax yéen dañu leen sóoraale lool si li nga xam ne moom moo di campagne bi le muy média bi vraiment parce que gis nañ nag liggéey bi ni ngeen si jàppee bu baax a baax baax mhm. te ñu yem fi incha allah daañu continuer li nga xam ne moom moo di partenariat bi ba li ñu bëgg incha allah ñu mën ko am mi mhm. ngoo ko nga daal di tàggatoo rek daal di lancer un message à l'endroit des parents voilà di di tëj rek di leen sant di leen gërëm vraiment si euh, déplacement bi nga xam ne moom ngeen effectué muy RSTV mhm. ñëw fekk see ñu si yi au niveau du centre conseil ado Euh, di euh, encourager bu baax a baax a baax également les pères éducateurs yi nga xam ne ñoom nekkoon sur le terrain vraiment liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la def les encadreurs également parce que y des encadreurs ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale xale yi. ngir liggéey bi ñu mën ko def ku si mel ni Ta Rosalie Tata Diatou ah Malick Boy président acteur communautaire yi euh, la coordinatrice du centre conseil ado madame Yandage moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax vraiment si bonne coordination bi nga xam ne moom lay def euh, di sant di gërëm également les partenaires technique ñu UNICEF ñi ñuy jàppale si lutte bi ak euh, wa projet promotion des jeunes muy euh, madam Kourangane Diouf muy coordinatrice nationale bi nga xam ne moom la jiite lépp euh, suñu ministre sax moom laa war lépp lu si si euh, vraiment liggéey bu ci ay moom lay def vraiment message de plaidoyer lenn kese la moom mooy à toutes les jeunes filles fermez vos jambes et ouvrez-les. d'accord fu may tëjee rek mooy comme elle est ne lui enlève rien parce que man sama bopp jaage ak santé mais côté xarafal jigéen muy doon loo xam ne tey nous sommes au cœur du vingtième siècle daanaka yenn pratique yi si jamono ji waratuñ ko sax dégg ku si nekk na si duggal solo fa soobu si moo de Kajaar ku mënti doon nga jële mu si li nga xam si ni wéyal bi équipe technique bi Sidi Lamine ak euh, tey jii yéen euh, Père Ekaterina ñi nga xam ne ñoo fi technique bi puisqu'on s'est déplacé di leen remercier bu baax di leen jox di daje